mbokk yi jaa ngeen jëf ci ànd ak topp gi Senweb TV senweb.com nu ngi fas yéene ànd ak yéen ci seen jotaay bu mag bii lee di tolluwaay di dalal la soxna dem Diop Ndeye Fatou Blondin bokk Sénégal avenir bu ñu bëgg waaye nekk membre de la grande coalition Yewwi Askan Wi ci élection législative yi nga xamante ni moom moo nekk ci actualité bi soxna si ñu ngi lay dalal ci tolluwaay. Euh, maa ngi lay fay euh, di nuyu sa sa yi ah defe naa pour l'essentiel. Mhm. Euh, di nuyu itam askanu Sénégal yëpp. Mhm. waa yeewi askan wi. Mhm. Ah, di baral loxo ci askanu mbuur bi nga xam ne fa jóge di jaajëfal bu baax ci invitation bi ci seen émission bi. di la jaajëfal fas yéene xuus waxtaan wi ci tomb bu njëkk bi soxal ni di maanaam élection législative yi nga xamante ni daanaka ñu ngi ci 48 heures laata ñuy jëm ci scrutin bi. ñu ngi ci fin de campagne. fi mu tàmbaleeg ba waxtu wi nu toll nii ana lan la mën a jàpp ci sa njàngat. Euh, waaw defe naa ne bu ñu ñëwaatee ci en général mën nañ wax ne que euh, ñaari force yu dëgër feeñ nañu euh, ñi nekk ci nguur gi kooku c'est c'est un peu normal ñoom ñooy sortant yi ak seen billan ak seen jaar-jaar depuis 12 ans mm-hmm. wante nag li bees mooy coalition Yewwi Askan Wi bi ànd ak Wallu intercoalition Yewwi Askan Wi ak Wallu bi nga xam ne euh, wax dëgg yàlla seen taxawaay ci biir Sénégal euh, feeñ na euh, nekk force alternative bu crédible boo xam ne moo ñëw taxaw ci kujje gi seen kan seen xarkanam feeñ bu baax ci biir ci biir kujje gi bu weesoo loolu am na ay coalition yu ñu mën a ràññee yu yu fi nekk wante wax dëgg yàlla ñaari taxaw yi taxawaay yi gën a dëgër mhm. mooy yooyu mën nañ ko wax ci fi ñu toll tey jii nii mhm. alors lan mhm. lañ mën a jàppate ci coalition bi nga féete muy coalition Yewwi Askan Wi parce que souvent campagne bi ñu bëri gis nañ ci mbumbaay am na mobilisation am na violence sax gis nañ ko ci waaye ñenn ñi dañuy wax ni dafay manqué absence maanaam débat euh, d'idées tey yan argument coalition bi nga bokk tey fas yéene maanaam wax askan wi ngir ñu mën leen a wóolu tey dénk leen maanaam pencum ndaw réew yi ngeen xamante moom ngeen di bëgg a wut. waaw mën nañ wax ne que mbumbaay boobu ak caravane yooyu ak nit yi ñuy wane kooku mooy ñi seetaan télévision ak euh, ñi nekk ci internet wante bu weesoo leader yi nga xam ne ñooñu la ñuy wane ak seen slogan yi ñuy génnee euh, ci télévision yi ak média yi di ko relayer euh, fépp foo dem Euh, département boo jël nit ñaa ngi mitin euh, pas meeting bon vraiment non non nit ñaa ngi caravane. Mhm. nit ñaa ngi porte à porte nit ñaa ngi dem ci marché yi ci garage yi di wax mbébétu foofu askan ba ñu dëkk nekk noonu ci département yooyu lan ak lan la ñuy xaar ci député ak lan lan la ñuy candidat yi ñu tabb foofu lan la ñuy indi loolu lu am solo wante nag feeñul bu baax ci waxtaan bi même ci boo xoolee caravanu leader yi chaque fois dina am ñaar ñett nit ba ñeenti nit yoo xam ne dinañ jël kàddu dinañ wax ci mbirum fiscalité dinañ wax ci mbirum euh, maanaam fiscalité maanaam l'impôt mm-hmm. dinañ wax ci mbirum euh, li jóge ci suuf si li jóge ci géej yi maanaam suñu ressources naturelles yi dinañ wax tamit ci mbirum dund gu cher gi nañ wax ci mbirum santé yi dinañ wax ci mbirum inondation yi wante euh, comme média moom dafa am loo xam ne dañuy jël li gën a li leen li li li leen soxal daal ci ci waxtaan bi mm-hmm. moom la ñuy dagg jël peut-être du feeñ mm-hmm. wante wax dëgg yàlla ci waxtaan direct ak askan wi mm-hmm. euh, fuñ ci toll ñi ngi wax mbirum carte yi ñuy war a jëli fuñ ci toll ñi ngi wax ci mbirum euh, li soxal askan wi loolu yëpp dina ca am léegi nag léeg-léeg mu am mbiixi jaaxa léeg-léeg mu am ay wax yoo xam ne day gën a feeñ su ko defee ñu koy gën a jottali wante kenn mënul wax ne que li soxal askan bi euh, ci ñun ñi nekk ci terrain campagne bi kenn waxu ko fa loolu defe naa ne daf loolu rek mooy ñiy nettali lan la ñuy nettali wante li nekk ci biir wax nañ ko waxaati ko wax dëgg yàlla. li soxal askan wi yaa ko tudd léegi bokk na ci dund gu cher gi. bokk na ci jamono juñ toll ni mbënn bi nga xamante ni ñu ngi ciy dund. bokk na ci tamit débat maanaam ci wàllu euh, voté loi pour la criminalisation de l'homosexualité alors tey coalition Yewwi Askan Wi combat yi mun a rapporter ci hémicycle gi nu jëm tey jii loo ñu ci mën a indi. waaw bu dee dund gu cher gi dafay xaw a bokk un ak fiscalité ci benn fànn. maanaam am na yoo xam ne euh, dañ koy jëlee bitim réew di ko ëndi am na yoo xam ne dañ koy defaree fii ci Sénégal di ma moo xam bay la moo xam ak naka lañ koy amee loolu am na ay lempo yiñ ciy teg am nañ yaakaar ne que bu ñu jëlee yi nga xam ne vraiment vraiment dañ ko soxla maanaam ceeb maanaam dëwlin maanaam suukar. ko mm-hmm. donte suukar yokkul noonu. Mm-hmm. Euh, maanaam yenn yi bu ñu xoolaatee lempo yiñ ci teg dina am coono bu muy wàññ bu muy wàññ ci biir euh, borom kër yi ak ak ak ak askan wi euh, léegi tamit bu ñu seetee ne que société yiy liggéey ci Sénégal dañ leen di teg ay lempo yu diis. Mm-hmm. ay société yoo xam ne dañuy jóge bitim réew. Mm-hmm. di ñëw fii di liggéey ñu teg leen ay ay lempo yu gën a woyof. Mm-hmm. kooku tam ñun ci suñu programme nee nañ nañ ko seetaat lu mel ne code minier lu mel ne code de la pêche. ak yeneen ak yeneen. Mhm. ñu gën a def loo xam ne dina gën a. Euh, dina gën a woyof ci biir Sénégal yi mhm. ba pare yokk koom-koom yokk alal ci biir Sénégal yi ndax wax dëgg yàlla li leen di baal ci lempo euh, bari na mhm. néewuñu duñ leen baal lempo parce que des fois ku jéggi dëkk ak dëkk loolu dina tax ñu yegsi ci suñu dëkk wante bu ñu demee ba nga xam ne li leen di baal buñ koy xayma dafa diis dafa bari bari boo xam ne Euh, ci dëkk boo xam ne euh, boo soxla nañu lépp daal. Mhm. soxla nañu ay hôpitaux gis nañu euh, li fi xew. ci Pikine mhm. fële Tiwaawan li mhm. xew ca beneen ba. Linguère voilà ñu am problème yu toll noonu. ñu gis abri provisoire. fi ñuy jàngee. ñu gis ni nit ñi sonnee ba ñuy joxe ay bourses familiales yoo xam ne vingt cinq mille nga dégg fan yi Euh, muy indi ci ay foyer ñu koy xëccoo ba bakkan di ci rot. est-ce que du ay jéego tamit est du ay jéego tamit jóge ci nguur gi. ci bourse familiale mais mais daf lay won dëkk bi ndool gi ndóol euh, euh, fi mu toll ba vingt cinq mille di faj soxla yow ngay ngay may ay huit cent milliards ay neuf cent milliards ci ay société yu mag foofu laay waxee. waxewuma ko ci lan ci côté bi fan lay jëriñee. Mhm. donc loolu dafay taxaw ñu war a xoolaat li ñuy baal ñiy jóge ci dëkk bi. buñ ko xaymaak ñun suñu soxla ak fi mu toll ak ndóol gi ñu ndool ci Sénégal loolu yëpp dañ ko bëgg boole ci suñu programme de législature ci proposition de loi yi tamit ñu gën a bàyyi xel yi li député mën a indi ci proposition de loi ca assemblée ba bañ rek di xaar luy luy luy indi luy loo xam ne gouvernement bi moo koy indi moo xam ne projet de loi rawatina yi nga xam ne gouvernement bi daf koy indi bëgguñu voté ko ci procédure d'urgence bu ñu xoolee lu mel ne OGM yi yi fi jàll ci fan yi mhm. euh, même bu ñu ko doon voté doon na baax ñu indi ko ci waxtaan ba nit ñi xam bu baax euh, lii ñuy voté lan lay indi. mais souvent jafe-jafe jël ay matu matuwaay. ay jafe-jafe indi ndax député yi fee nekk li nu seetlu mooy que ne daanaka li nguur bëgg rek moom la ñuy def daana sax dañuy wax ni ñoom. député loolu moo tax ñu ne doon député loolu moo tax ñu ne nañu indi ay député yoo xam ne bés bu leen gouvernement bi bëggee patam patamee ne leen voté leen lii parce que député yooyu ñooy dellu si waat ci askan bi dem lekk loolu député yooyu ñoo par exemple yi voté woon en procédure d'urgence Euh, euh, kii euh, acte trois de la décentralisation mhm. ñoom ñoo dellu gis ne que defuñu lépp li mhm. ci war bañ que boobu bañ koy voté am na yu bari yoo xam ne ñoom comprendre wuñ ko woon mhm. mu dellu si waat parce que député yooyu ay citoyen lañ ay élu lañ donc bu ñu voté ba pare lii vote boobu di indi dafa laaj ñu indi ay député yoo xam ne donte jànguñu parce que tey ji am na traduction simultanée defe naa ne bu buñ leen ko expliquer bu baax a baax a baax dinañ ne ah waaw lii moom dégg naa ne bii dëkk dafay joxe cancer loolu nu mu demee leeralal ñu ko dégg nañ ne dëkk bale bañ ko fa indee askan bu bari dañ ko bañoon lu tax ñoo ñu bañ ko léegi leeralal ñu ko tey loolu su boobaa dañuy indi ñoo xam ne dañu koy dañu dañu koy leeral te foog naa ne député yi donte du ñu euh, soxlawul nga nekk spécialiste pour mën a laaj pour mën a ñu jax la loo xam ne parce que loo xam ne askan bi lañ koy indi dañ ko war a leeral askan bi. Mhm. askan bi du ne leen yéen doo leen ay spécialiste ah kon lii bu leen ci wax. mais est-ce que yéen a ngi ciy jox dox dox jéego ci campagne bi ngeen amal ci tournée bi ngeen profité expliquer askan wi lan moo war a taxawaay député ak li tax tey jii nii ñuy yóbbu député assemblée ngir mu nekkal fa askan dëgg la parce que loolu mooy par exemple dañ ne. Mhm. Euh, euh, bu fekkee ne. Euh, benn moo xam opposition moo xam nguur gi dafa am majorité bu rëy rëy rëy boo xam ne lu ko neex def loolu boobu assemblée baaxul assemblée bi baax mooy ku ci am doole loo am am am doole da ngay soxla déglu keneen waxtaan ak keneen waxtaan boobu mooy indi leeral mooy indi yokkute ñun boobu façon assemblée lañu lañu la ñu bëgg boo xam ne bu ñu indee dara waxtaan bi dafay génn assemblée ndaw réew mi euh, daal di daal di jokkoo ak réew mi ñu dégg ne que ah tey jii de euh, ñi ngi voté code de la pêche code de la pêche nee nañu licence yi li ak lii lay indi ah su ko defee man mi dëkk Mbuur ah bés bu fekkee ne dama ko nangu ndax rek dama bokk ci majorité mécanique su ma dellusee ci Mbuur dinañ ma laaj ne yow looy ñëw di ñu wax de di ñu jox ay voile ak ay juróomi dërëm ak ay junni pour ma votel la mm-hmm. fekk ñun li doon suñu sutura li ñu daan indi ay millions li ñu daan indi ay liggéey li ñu daan tabaxloo suñu dëkk yow ba ñuy voté li ñu ko xañ da nga ko voté donc yooyu façon député bés buñ ko bés buñ ko amee te mm-hmm. mode de scrutin bi mm-hmm. moo ñu koy indil kooku tamit mu bokk ci suñu ay proposition maanaam li ñuy xayma ci majoritaire raw gàddu bi dafa ëpp dafa ëpp même buñ ko mënul bàyyi comme dëkk yi nga xam ne dañoo avancer bu baax a baax mais buñ ko wàññee ñi nga xam ne dañuy askan bi directement ñoo leen koy jox pour ñu am ko euh, loolu dina indi euh, maanaam euh, assemblée bu gën a responsable ndax député yi dañuy gën a responsable loolu daal vraiment bëgg nañ ko ci suñu assemblée am na solo fi nga toll beneen tomb bu mooy seen wàllu liste yi ndax yaakaar gi nekkoon na ci liste nationale bi yàlla dogal conseil constitutionnel tranché liste suppléant mooy mujj dem mais li askan wi seet seetlu mooy euh, ñi ngeen indi ci liste suppléant nee na ñoom gisuñu leen miinuñu leen parce que ñoom durant toute la campagne on ne sent que la présence maanaam de l' absent le plus présent muy leader Ousmane Sonko lan yëfu caay-caay bi ñu jaay parce que wax dëgg yàlla lii lii conseil constitutionnel def mosul am ci benn dëkk ci àddina wërngal këpp li conseil constitutionnel def ay xaaju list liste da naan na toog yëpp mbaa na dem. mais ngeen accepté tamit. waaw déedéet wala ñàkk a pexe lañ ci moo tax ñu teg suñu stratégie bi ñu teg moo tax ñu teg suñu stratégie bi te stratégie bi dafa fay. non Sonko rek lañ gis. seen suppléants yi on ne les ñu bëri ñu ngi posé wu question qui sont-ils. waaw mais on ne sent que la présence de l'absent le plus présent de Ousmane Sonko. bëgg na xam tamit ñi leen nar a teewal ci assemblée nationale. dëgg la mhm. ñi taxaw liggéey projet de législature boobu ñooñu lañ ne yéen doo leen dem fekk ñooñu dem nañu ba ba taxaw ba liggéey ci pro ci projet de législature boobu ku ne xam na ne que mais euh, ki ki nekk ci ñi nekk ci list titulaire yi ñooñu ñooy ñi gën a taxaw ak askan bi di waxtaan ak askan bi ba ñu xam leen ba ñu am popularité bañ naan list bi ah jàll mii ci nekk de mhm. ah euh, rafetlu rafetlu naa taxawaayam mhm. noonu la mu àddina yëpp yëpp noonu la ñuy demee su ko defee ba ñu taxawee ne ah assemblée de euh, mën nga am nit feebar mën na am yàlla tere nit jóge fi mm-hmm. kon nañu wut ñoo xam ne dinañ leen remplacer bu fekkee ne nekkuñu fi mm-hmm. wax dëgg yàlla ñun nekkuñu ci système comme sama liggéey télécommunication boo xam ne sa secours dafa war a taxaw nga def ci lépp lépp xaalis ak mëtuwaay comme mm-hmm. sa normal comme sa sa sa système normal nekkuñu foofu de dañu nekk ci bu ñuy tabb donte euh, suppléants yi ak ak ak ak titulaires yi ñëpp doomu aadama lañ ñëpp jàng ñëpp ki mais ñi ñu tàggat pour ñu dem bëri ji mu mel ne parce léegi <laughs> yëf yi day mel ni ëttu làmb ci des déedéet dafa mel ni écurie Balla écurie euh, Tay Shinga mm. nga jël champion bi mm-hmm. ne yow doo dem remplaçant bi mooy dem noonu la parce que champion yi mm. ñoom ñoo liggéey ba ñu taxaw ne léegi à trois mois des mm. élections defar leen list ñu ne léegi champion yi entraîné woon champion yi gën a taxaw champion yi liggéey yéen doo leen dem indi leen ñi nekkoon ci seen gannaaw ñoom ñu dem xam nga loolu lañu lool la ñu def mhm. ça c'est une forfaiture loolu yëfu njublang la njëf yëfu yàq démocratie mais lu tax ngeen accepté ko c'est ça hmm. le paradoxe parce que li tax xam ci seen taxawaay boobu ba tey ngeen ñëw ba waxtu wi ngeen accepté loo xam ne parce que dafa am bataille de communication parce que politique du rek jour vote ba dafa am bataille de communication ba ñuy taxaw di ko xeex yéen ñii média yéenay xëy suba ba ngoon ne ñii di xeex lii dañuy tas dëkk bi ñii di xeex lii dañuy indi waasoo ñii di xeex lii dañuy féewaloo ak nit ñi ñii di xeex lii ba nga ay discours am attitude yoo xamante ni mën nañ méngale seen ma dellu siwaat ci sama li may wax ba dellu siwaat ci li may wax <laughs> ba nga xam ne fu ne la nit jóge gisatuñu ne que xeex bi mhm. pour indi doxalaat démocratie la dañu gis ne que xeex bi dafay indi xiiroo ak ŋaayoo ci dëkk bi kooku bataille de communication la léegi bi loolu amee ku nekk ñëw taxaw ñaan ñu tabaski bi taxaw tamit ne waaw yéen gi nii d'ailleurs boo leen génnee di xeex lii dañuy sàcc xaru tabaski yi ak ak yu demee noonu lu ne wax nañ ko fi ngeen jàppale leen ci nag ba mu fuura fuura fuura fuur ba mu taxaw loolu mu nekk bataille de communication mais ku ci nekk dangay am sa pexe parce que ñi taxawoon ne tey jii dañuy suul ndaanaanu wàllu ñi nekk wàll yeewi wàllu ñooñu ñoo taxaw tey jii forcé nangu nekk campagne bi yeewi wàllu dañuy taxaw ñu ànd ñun tamit seetaat suñu bopp xool bu ñu demee ak bu ñu demul naka lay lan ak lan lañ ci perte lan ak lan lañ ci gagné. Mm-hmm. ñu xam ne que taxaw daal. mais mais mais façon. jalgati bi am na ba pare. Mm. parce que ku taxaw ne la. Mm. benn nit dafa nekk ci sa liste titulaire nekk ci sa liste suppléant conseil constitutionnel ne man dama koy dindi sa liste titulaire daal di lay nangul sa liste suppléant xam nga kooku kenn xamul loolu mooy lan fekk jurisprudence maanaam situation yooyu bi ci at ci gannaaw ba mu amee. Mm-hmm. dañ ne nit ki. yow fan ngay nekk parce que du liste bi mooy problème bi te yow nit ki. yaa nekk ñaari yoon mais que contexte yi c'est pareil comme boo jëlee jurisprudence dàkku bi nga bëgg appliquer. tey ci que droit wu Sénégal ba léegi code électoral bi fi nekkoon. moo fi hmm. nekk ba léegi ah. code électoral bi changé wul. ci fànn boobu. Hmm. amul dara lu fi changé. wala boog ngeen woon ma. donc yooyu bu ñu amee dañ naan lan moo ndax bu dee lu bees la mu si fi am ñu seet nuñ koy doxalee bu dee mës na fi am ñu seet naka la demee woon. léegi bañ ko fa seetee mu amoon fi 2001 ñu ne kooku ba mu amee dañ ko ne fan nga tam tànnal ban liste la kooku ne fii laa bokk. fii ne conseil constitutionnel duma du ko def. Ah, loo njortu foofu. damay taxaw foofu. Hmm. léegi ne daal di dindi seen liste euh, champion yi. Hmm. daal di jël seen liste tutélaire. léegi ñun bi ñu xoolee ba loolu ba xool xoola xoola xool ba loolu ñun ñu décider suñu bopp ne léegi campagne bi. ñoo koy mëneel suñu bopp suñu suppléant parce que ñi entraîné woon depuis deux ans trois ans du ñe leen toog leen ñi nga xam ne dañu ñëw ne leen kaay leen remplacer en cas parewuñu wuñu comme ñee ni ñu paree kon léegi dañ leen di may loxo dañ leen di may doole dañuy dem fu nekk jàppale leen mais ñooñu ñëpp ñi ngi campagne kenn toogul kenn toogul mais sëgam leader yi ñoom ñëpp ak li ñu bari bari ba kenn rek lañ ciy déglu. Mhm. média yi. kenn rek lañ ciy déglu. non attention yëpp daanaka fi mu ne nii projecteur dañ ko braqué sur Ousmane ko ku yore projecteur ku yore projecteur bay braqué wax ko ko yow waxal ko ko sa bopp sax fi mu nekk nii ñi yore projecteur foofu la ñu braqué mais gis nga. il y a deux choses. est-ce que tamit nekkul taxawaayam daanaka presque. Euh, moom la ñuy euh, gën a gis moom la ñuy gis mu gën a fës ci wàllu jël kàddu ci wàllu. porté les responsabilités sont largement parce que bu bu bu tamit. Euh, où sont les autres. mais bu bu fekkoon ne presse bi dafa ne. maa ngi dem loolu du liggéey presse bi mais loolu. yéen seen organisation la à votre niveau déedéet déedéet ku ci nekk da am sa de presse buy topp Yewwi Askan mhm. am seen équipe de presse. Mhm. bu ñëpp indee ngeen choisir lan ngeen di teg ak lan ngeen di bàyyi. non on parle de tous moom kenn ku ci nekk dinañ. xëy na non c'est pas pour critiquer. c'est pour dire que plusieurs fois. Mhm. ay événements simultanés am na. Mhm. boo demee ci rédaction bi yow def nga sa liggéey bu mat sëkk. Mhm. soo ko yónnee sa rédaction kooku mooy choisir lan lay wax ak lan la dul wax wala. wala homme politique bi mooy ñëw ne leen wax leen li non en tout cas ñun moom lu ñu dem couvrir ji moom dañ koy ñëw teg ko askan wi xam ko ndax looloo ñu yëkkati man moi je bu fekkee am na beneen presse guy def loolu xëy na man xam naa yow yaa ma ci tene non loolu la ah. noonu lay demee noonu lay demee mhm. c'est-à-dire que chaque jour Sénégal lépp fi mhm. xew ci 46 départements yëpp mhm. nañ toog suba ba ngoon te dara du fi xew mais journal télévisé 30 la kon foog ñu tànn lan la ñuy wax xam nga yéen sax ci ci ci ci ci ci internet bi yéen déjà am ngeen chance su euh, flux d'information maanaam guddeeg bëccëg ngeen mën a jottali. Mm-hmm. ba pare boole ci euh, euh, am plusieurs plateaux am yëpp. Mm-hmm. mais le diktat du journal télévisé ba léegi dafa am poids maanaam trente minutes yoo xam ne ak 46 départements yi des fois sax ak Afrique ak yow ak yëpp li fi xew foog nga segg. su ko defee rédaction bi day am nu mu lu mu choisir ne foofu lay seggee loolu lay won ak li mu dul wone loolu moo am loolu moo am man kañ laa ko comprendre du sax fii beneen dëkk la bu samay doom ñu joxoon leen liggéey ne leen euh, pendant trois jours seet leen ñetti média journal télévisé ngeen seet naka lay demee may jàppale sama doom ci liggéey bi mm-hmm. gis ne dafa am algorithme waaw ah, loolu la il faut recueillir traiter avant de diffuser. léegi choisir ba pare tu as 30 minutes. Ah, mais on lan ngay wax ak lan nga dul wax pas n'importe quoi. ma ne la lan ngay il faut que ñu segg li ñu war a wax parce que dafa am. loolu moom jamais n'importe quoi parce que y a pas de n'importe quoi ci mhm, loolu. Mhm. journaliste bu ci nekk. Mhm. li nga doon wax suñu titulaire ndax mootuñu. amul benn journaliste buy dem liggéey fenn di indi n'importe quoi yéen tamit képp ku ci nekk dafa liggéey. mais boo leen yegsee ba fii. di ngeen ne lii. moo gën a nekk li ñu li ñu choisir wone léegi li tax ngeen di ko choisir yéen a ko xam kenn mënu ci dugg dañ koy respecté wante bu leen jël nag confondre ne ko loolu ngeen choisir loolu mooy dëgg gi man ci sama dowaaru doom boobu bu dul dëgg mais mooy li am ndax duñ leen woon loo xam ne méngut ak li nu fa jël déedéet parce que dañ ne mhm. dama koy wax toujours genn wàllu dëgg du dëgg maanaam wax axatuma euh, sàkkati na xaaju dëgg mhm. du dëgg parce que wax nga lii waxoolee waxoolee waxoolee yow yaa xam li tax nga wax ko mhm. xëy na peut-être lii tënk na lépp mais xëy na peut-être lii nëbb na leneen mhm. xam nga donc loolu loolu yëpp ci communication la bokk donc moo tax ñi bëgg muy média yi di bari comme ça nga dégg kii fu mu gisee nga gis kee fu mu waxee nga gis kee ko fu waxee comme saa nga mën a xam ne leneen am na mais kii nii la waxee donc taxul sax mu fen sax ni rien mhm. mais moom non loolu la choisir wax daal voilà donc complémentarité boobu dama bëgg nit ñi di xam ne que euh, c'est pas la vérité parce que c'est pas toute la vérité c'est une vérité choisie par une équipe de montage c'est comme ça l'information surtout le journal télévisé moo ci gën a garaaw c'est important fi nga tolloon par rapport ak communication bi justement ñu seetlu ci communication bi ngeen xamante ni yeneen koy porté récemment kenn ci seen leaders yi Ousmane Sonko am kàddu yi mu jëmale par rapport aux autres coalitions mhm. jàpp ni ñoom ñooy coalition bu baax bi bu ngeen di voté voté leen ñu mais ñeneen ñi jàpp leen ni ñoom ils sont de connivence maanaam tey ak lii di nguur gi mu yëkkati tolle ba ñu jiiñ ko nit kat dafay wax lu wóoroog li nga xam wax na lu wóoroog dafay fen wax lu dëgg eh, mu indi coow lu rëy alors tey eh, loolu nag ngeen ko mën a man ni ma eh, ko gisee cautionné gis naa ci gis naa ci yu baree baree bari mhm. d'abord wax dëgg yàlla fii ci senegal ma wax ko waxaat ko mhm. mburoog soow jaar na fi c'est-à-dire ñépp jël nit gisee ko fii mu wax leen lii ñu gëm ko mu xëy suba mu fël mu feeñ na ba mu leen di wax lii ma ngay wax leneen ci suuf loolu ñëpp a ko fekkee mu yegg si deuxième ci élection c'est pas n'importe qui ñu dem ci jogante mu ne safe quinze mois bi ñu waxee ñëpp nit def calcul ne moom de kon ba ñuy campagne di ko jox suñu kàddu kon moom mi ngi doon waxtaan. Mm-hmm. loolu jaar na fi yeneen tam jaar na fi ay taskatu xibaar ay écrivain maanaam ñuy bind livre. ñëw ne ñoom bokkuñu fenn waxtaan ak askan bi ba ñëpp di leen déglu ba ñépp gëm leen. Mm. ñu xëy suba ne léegi ñoom léegi de ay politiciens lañ dootuñu wax dëgg fii lañu far voilà daal de ne ñoom dañu nangu seen droit ne tey jii comme ñi ngi ci biir liggéey dootuñu wax dëgg fi ñu nekk foofu ñuy wax loolu lañ foofu lañ topp buñ leen ko mayee. wante loolu am na lu mu indi ci société bi ci naka lay nag kii ñëw di wax ak yow ba ci man nii ndax li may wax dëgg la ndax li may wax gëm naa ko ndax ndax ndax suba duma changer ndax nekkuma ci suuf di wax ñépp a ci jaaxle ci côté boobu dafa yàq lu baree bare loolu mooy ci gannaaw bu ñu yegsee fii ñu nekk si tey ji nii réeru la ne am na ñaari coalition yu leer nañ yoo xam ne am na indi nañ problème kenn ki dafa nangu au mu jël photoom ki ko jiite mu nekk màndargaam mu daal dee jël bulletin mu mel ni xaw a mel ni suñu bos mu nangu ko lu tax mu def loolu moom moo ko xam keneen ki ay naataangoom ñi mu bokkal ci biir coalition nee nañ ba mu demee ci benn journal di fa wax wax na loo xam ne méngoowul ak ñoom coalition ba ñu bokk lañ ko waxoon mu wax fa. kookal la bunt bi. ok ils ont de sérieux problèmes def nañ conférence de presse am na ñu démissionné parce que nee nañ ka demoon dafa mel ni nguur gi lay liggéeyal. ba ñu dénoncé ko ba taxaw keneen kii coalition Cheikh Alassane la moom tamit nangu mandargaam bulletin niroog bu yeewee askan bi mooy naataange askan wi. naataange waa defe naa Cheikh Alassane defe naa. waaw moo nekk naataange. moom bulletin. dafa nangu ne au lieu mu def comme ñeneen ñi ñu def foto moom mu ne déedéet bulletin day niroo bu yeewi askan wi noonu lay demee élection kon xam nga ne léegi kon kon kon kon jeexi jaaxa am na léegi loolu mooy bu ñu analyser dans le for dans la forme léegi bu ñu ñëwee ci àll gi ci weex bi même euh, yow dama foog ne bu fekkee ne da nga ne yow sa priorité mooy Euh, vraiment bilan législature bi fi jóge ñii taxaw naan man député Macky Sall la ñii ñu jàppaleen ci trafic de drogue ñii ñu jàppaleen ci loubal passeport ay commission d'enquête d'enquête yoo xam ne ba ñu paree nag dafa ñëw weddi commission d'enquête ba loolu yépp ñu ñaawloo ko ñaawlu ko ba yow nga ne jële fi lii moom laay bañ mm-hmm. ñu tegal la mode de scrutin boo xam ne raw gàddu la près de 70 pour cent ci élection yi ci raw gàddu ci député yi ci raw gàddu bi la ñuy jóge maanaam tey jii ndakaaru région de Dakar hmm. raw gàddu bi mën na jox benn coalition quinze 15 députés fekk ñeneen yi boo seetee ñeneen yi boo leen boole xëy na ñoo ëppalee kenn ki jël 15 yëpp hmm. loolu moo fi nekk nga bëgg ko nga bañ ko ci élection yu mel noonu ngay dem hmm. kon bu fekkee ne yow nee nga sa priorité mooy jëlee ñi fi jóge kon ni ngay voté ak fi ngay ak ni ngay taxawee politique da koy seet moont mooy mooy mooy lan mooy man donte d'accorduma ak coalition bi nekk opposition ci fii ci fii ci fii ci fii mais man su ma demee yàq yàq rek la parce que du yegg li ma mën a def rek mooy wàññi ñi nga xam ne ñoo bokk sama priorité mooy jële fi ñi wala yokk doole li nga xam ne ñoo fi nekk mais man ci sa bopp du am presque dara boo ko seetee ci noonu moo naam intellectuellement ci ngay seet taxawaayu coalition yi fan la ñu jëm c'est pas intuitif personne parce que wax dëgg yàlla est ce que c'est boo jëlee tey docteur Abdourahmane Diouf aar Sénégal jër Thierno Alassane Sall jër Thierno Bocoum xam seen taxawaay bu ñu am par rapport ak régime bi fi nekk. mais moo tax ma ne la nga boole ñëpp ci benn saako moo gis nga ñooñu nga tudd ñooñu ñëpp. Mm-hmm. amu ci kenn koo xam ne mm-hmm. suñu doomu ndey lañ ñu suñu doomu ndey tellement dañoo yàgg waxtaan dañoo ànd ñu bokk sax ak ñeneen ñu nekk ci ñun ay relation yu yu yu yu yoo xam ne mu defe naa ne ñoom ci seen biir sax amuñu ko boo gisee ku mel ne Déthié Fall ak Abdourahmane nga xam ne sori nañ yàgg nañ sori nañ kenn du ci wax sa moroom lu ñaaw ba ñu jàppee Déthié Fall Abdourahmane naka ñu ko seeti kon xam nga ne du affaire u nit du affaire u ñoom dañu sikk au contraire ce côté là liñ ci bokkee sax dafa bari li ñu bokk li ñu li ñu féewaloo mooy peut-être suñu doxalin ak seen doxalin. la ñu d'accord leen di yéen yéen a set yéen a sell a gën. du loolu hmm. doole ji raw gàddu bi la raw gàddu bi hmm. xam nga bu doon comme comme comme dëkk yi nga xam ne député yépp ay proportionnel lañ hmm. du demee noonu mais bu fekkee ne raw gàddu bi la mooy indi wax ci raw gàddu bi moo tax yow par exemple 70 pour cent député yooyu presque doo ci am dara dara dara dara dara yaa ngi ñëw ñëw ci 30 pour cent yi 30 pour cent yi huit coalition yi war ko bokk. ñaari coalition yi doole yi mu wóor na la ñooy jëlaat encore 70 pour cent. li ci des ngeen wisaare ko coalition yi ci des. méthode ni ñu defee ki scrutin bi. moo moo indi ñu war a àndandoo. bu fekkee ne. priorité bi mooy jële fi mais mën naa d'accord ne. suñu doxalin d'accorduñ ci suñu lii d'accorduñ ci maintenant un peu tout le monde dafa am yeneen calcul dafa am yeneen calcul muy 2024 parce que ñu bëri jàpp nañ ni campagne bi sax campagne déguisée bu présidentielle la mel na ni enjeu bi dafa weesu maanaam lii di émi cycle bi et c'est normal et c'est normal parce que fi ak un an et trois quatre mois mhm. ñu amaat élection présidentielle loi bi constitution bi dafa ne il faut au minimum deux ans pour nga mën a wootawaat élection législative kon mun nañ wax ne que soo boolee ñaari yooyu ci ci waxtaan bi amaana député yii di ñëw nii du ñu weesu ñaari at législature bi en tout cas du weesu ñaari at mm-hmm. loolu moo indi lii nekk nii ku fi am programme mu cinq tamit amaana forte chance yoo xam ne doo am cinq ans pour doxal ko deux ans nga am loolu tam dafa ñëw jaxase kart gi date mais date bi mënul woon demee neneen parce que calendrier électoral bi moo ko moo ko indi voilà donc kenn mënu ci dara te il fallait respecter le calendrier électoral ah léegi nag ku ci nekk xam nga ne boo demul campagne bi Euh, quand même quelque part euh, nit yi dinañ la xaw a fàtte parce que mooy campagne bi jiitu élection présidentielle. Mm-hmm. nit ñi dañu def calcul boobu ba nga xam ne am na ñoo xam ne amuñu liste ñi ngi campagne mm-hmm. <laughs> waaw kooku beneen yëf la. Mm-hmm. kooku beneen yëf la mais ba tey ci campagne gi la. ba tey ci campagne gi la. Ah. mais prétexte la parce que xam nañ ne visibilité bi am nii. Euh, ku ko raté. <laughs> Euh, euh, naa nekk di nga am benn ta retard daal. par rapport néew mënul am. Hmm. parce que keneen mën na ñëw. Hmm. yàlla moom ak mbiram. Hmm. keneen mën na ñëw koo xam ne fu mu nekk nii peut-être mi ngi ci gannaaw peut-être mi ngi ci kenn bàyyiwu ko xel mais mi ngi liggéey. mu yegg si ba circonstances yi mu taxaw loolu yëpp mën naa am. wante le plus probable. li gën a mën a am mooy. jongante bi li ci li ci feeñ booba. Mhm. mi ngi ci ëttu ñi taxaw nii tey. ndax dafa am lu ngeen si sóor ndax lu mel nii président de la république Macky Sall dafa joxe rendez-vous après législative ngir mu prononcé wu ci question ñetteelu mandat bi parce que mel na ni lu ngeen sóor la trop ci enjeu élection bii nii. ñun li ñuy wax mooy. Hmm. ak lu mu mënti wax. waaw ak lu mu mënti bëgg. Mhm. ak ñi nga xam ne ñoo dindi suñu liste titulaire bi luñ ko mënti rëddal moom du bokk. fu ngeen koy teg. fi ñu ko fekk fi ñu ko mm. teg. Mm. d'abord gor ca kàddu ga gor ca wax ja bu mm-hmm. ñu delloo ci ëllëg mm-hmm. mu wax ko waxaat ko waxaat ko mm-hmm. ñuy xaar ci moom l'esprit de la lettre mu nekk gor est que loolu la texte bi wax déedéet l'esprit de la lettre parce que ñun du ñu ay ukrainien ah, ñun ay sénégalais lañ ñun doog kàddu dafa am boo demee ci sëriñ si ñëw ci askan wi dem ci campagne dem ci partenaire wax leen dara ñi ngi xaar ci yow nga sàmm sa kàddu wala boog mu taxawaat ñépp ne leen sama yoon nekku ci génn naa teggi naa samay wax leneen lay def na ko taxaw wax boobu mooy bi njëkk jikko am na ñuy wër naan sàmm jikko am na ñuy wër fu nekk di wax jikko kàddu ci la bokk boo dee gor boo dee garmi moom la ñuy xaar ci moom ma moom ministre de la justice am à l'époque ñoo dalaloon suñu xel ci wax jooju wax ko waxaat ko ba ñëpp d'accord ci ne lii leer na ci bopp ñëpp kon ñooñu bu ñu taxawaatee wax leneen defe naa ne askan bi duñ leen ko may parce duñu fontoo dëkk bi mais au même moment am na ñu bokk ci askan wi ñoo xam ne ñu ngi koy soutenir ba jàpp ni sax dafa war a am mandat illimité. non ñooñu nañ wax lu leen neex ñooñu ils pas. ci askan wi lañ bokk non ils comptent ndax ñooñu esprit bi ngay wax ci maanaam constitution ñoom ñoo ne ko compte pas li ñu li compté mooy. Hmm. gor ca kàddu ga. ak li loi bi waxoon ba muy yegsi li constitution bi waxoon ba muy yegsi te moom mu sukkandiku ci ne lii maa ko wax. deux mille vingt quatre mu jeex. conseil constitutionnel réglé na ko. te conseil constitutionnel mësul taxaw ne weddi ko. kon pour man wax jooju dafa tëdd ba pare. nit ñee koy wax nii rek. mais wax jooju dafa tëdd ba pare. pour man même moom lenn lu mu wax laa gëm. su ma ci waxee samay waa kër dootuñu liggéey man loolu laa gën a gëm su ma ci waxee. samay waa kër dootu ci liggéey. kon bu fi ñëwaatee deux mille vingt quatre. Mhm. bu deux mille vingt sept jotee. Mhm. ay waa këram dootuñu liggéey. kon deux mille vingt quatre ba deux mille vingt sept. Mhm. ay waa këram dootuñu liggéey. parce que nee na la bu waxee bu ñu xamee ne day dem dootuñu liggéey kooku rek koo boo kooku damay xaw a sabote mais. lii dëgg ba dëgg mooy li ma njëkk a wax. gor ca kàddu ga. ñun nag dañu bëgg. ki ñuy jiite. muy sàmm kàddoom rawanti rawatina. su waxee waxaat waxaat waxaat su fekkee ne sa dafa wax mu xaw a rëcc wante solennellement mm-hmm. nga campagner ko ba nit ñi jox leen seen kàddu ba nit ñi jàppale la ci mm-hmm. dama xamul mm-hmm. en tout cas man en tant que gor naka laay taxawaatee di wax leneen dina metti ci man xëy na moom keneen dina yomb ci keneen wante ci man dina metti torop muy waraat ci kanamu ñoo ñépp <laughs> di leen wax ne que la ma leen waxoon. à place. Ah. yow looy wax askan wi. non message gis nga man man c'est clair. Ah. à place. oui par la grande porte comme ni koy nit ñi di tuddee. bien que mi ngi gën a metti plus muy dem plus muy gën a metti plus muy dem plus muy gën a metti ci moom ban bunt lay jaar pour génn parce que ci kotom ku jug mu wàcc la ku jug mu fekk la. et ça c'est son problème sama yoon nekku ci mais mooy li ma gis ku mu wàccawaat la bu metti bu méttee métti donc plus muy dem. Mhm. plus muy gën a métti ci moom mais bo c'est son choix. man Mansour si Djamil ngeen bokkoon coalition Yewwi Askan Wi am yu ca xew ba mu génn nu gis fan yi mu def benn consigne de vote wax njabootam maanaam nañu ànd dooleel lii di coalition benn Bokk Yaakaar ci élection législative yi njëm ndax du doon. loo xamante mën na leen fragiliser noo jàngatee consigne de vote gi mu joxe. afa moom dama naan Mansour Sy Djamil. Mhm. bés du ñàkk ñu teg sëriñ bi fee comme ça wax ji leer euh, en tant que responsable politique def na yoo xam ne ci gannaaw teyoon na xel ndax defe naa ne bu ñuy defar centenaire Maodo. radiyallahu doo dem kar président France di ko fa wax. te mu am benn kuréel boo xam ne fii la taxaw Sénégal di ci liggéey kon ba mu gisee makki ne loolu lay wax nee nañ ah lii de mooy lan. bon ca gannaaw waxoon nañ fi ay compal wax jooju waxoon na ko fi <laughs> bon mu googu daal sama grand la. Mhm. respecté naa ko beaucoup di côté familial. ak lien yi ñu am. moom ak waa këram yëpp. ak waa kër Blondin. ndax ay magam ñoom lañ dañ leen jàppandoo woon ak Omar Blondin yóbbu leen ñoom ñëpp kaso. kon xam nga ni relation yi sori na. wante bu ñu waxee ci bés du ñàkk ni mu ci doxalee. Mm. ak nii. Mm. mun nañ wax ne que am ci diir ci gannaaw. Mm-hmm. xel teeyoon na te ca cëppaandaw ga. nii la def mu indiwaat li Ousmane ko wax kan mooy opposant kan moo dul opposant ndax du stratégie politique xalaatuma woon ne dina yegsi ba fii nag. yaakaaroo xalaatuma woon ne dina yegsi bay voté bay wax consigne. Mhm. voté contre. xalaatoon naa ne gisul boppam ci ni mu demee diggante bi. Mhm. kooku moom gis nañ ko. Mhm. kooku moom séntu woon nañ ko. wante. yéen ñi sax amoon ngeen jafe-jafe. yaa coalition bi. non mosuñu génn conférence. ok mosuñu génn lié wi askan wi. Mhm. la fa lañ fa la fa nekk. te mhm. neexuñu. Mhm. dañ ko wax. te bañ ko war a waxee wax ko ak ñañ ko war a waxee. ñu xam nag ne que yoonu politique lu metti la ñoo am sago ak xel mu toll ne fii ñu jëm ak priorité ak li ma wax sànq. priorité lan mooy suñu priorité est-ce que lii ñu am fii ci gàllankoor naka la toll par rapport ak suñu priorité ci biir Sénégal ñu taxaw ci si biir plateforme Avenir Sénégal waxtaan ci jël ne lii moo suñ mën war a nekk suñu taxawaay ñu taxawee ko di ci liggéey taxawee ko di ci liggéey nekkuñu ko du ko def affaire personnelle. nekkuñu ko di ci xeex nekkuñu ko di di ci di di di di ko. est-ce que du ngeen ko du ngeen ko joxul cëram ci biir coalition yi Askan Wi. ba oh, loolu frustré ko xëy na tey. Euh, loolu yëpp mi ngi ci il pense que. place dëgg yàlla suñu investiture yi indi na coow lu bare bare bare. suñu investiture yi. Mhm. dina coow lu bare bari ci biir yeewi askan wi. suñu bëree ngeen naan comment se fait yeewi askan wi bañ maanaam ku mel ni Serigne Mansour ñu teg ko ci position goo xam ne politiquement parlant tey mérité woon na. une meilleure place waaw nous sommes en 2022 xam nga. Mhm. ñi nekk ci yeewi askan wi yëpp sànq yaa ngi wax titulaire yi ndax wegu leen. Mhm. wante ñi nekk ci yeewi askan wi yëpp tam nañ leen wekk. moo tax ma ne la bul wax sëriñ. waxal Mansour Sy. non je parle de l'homme politique Serigne Mansour politique l'homme politique c'est important. parce que ce titre là dafay joxe préséance gis nga même ci biir waxtaan bi demoon na est-ce que ku nekkoon ancien député forcément yaa war a jiitu ku mësul nekk député réflexion boobu amoon na ci biir ci biir waxtaan bi mm-hmm. sinon kon on prend toujours les mêmes règles on les reconduit. ban offre politique la ñu jëm ak kan la ñuy teg ak kan la ñuy teg malgré tout sa man d'accord naa ne que li génn méngoowul ak liñ doon xaar moo di coow lu bari mais encore une fois man suñu bopp laa mën a waxal ñu def ci lecture xool suñuy priorité jël suñu décision avancé au même moment beneen homme politique bokkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar doon ànd ak Macky Sall muy professeur Mary Teuw Niane moom fekk si na yeewu askan wi ànd ak Abba Mbaye ngir dooleel leen te moom itam consigne de votam mooy mu appelé ñu voté massivement lii di seen coalition yeewi askan wi noo ko jàngate waaw moom def na audio. ne sama jarbaat yi Abba lay jàppale mhm. lu am importance la mhm. waxul ne Ousmane Sonko lay jàppale sama jarbaat Abba fii ci Ndar lay jàppale waa Ndar yeew voté leen yeewi askan wi déggin dafa baax. ah kii qui parle du contenant parle du contenu. loolu la wax ci déedéet loolu la wax. ah kon maa léegi nag bu dee moom ci boppam. bon gis nañu taxawaayam depuis très longtemps. ak liberté bi nga xam ne daf ko jox boppam. même ci local yi. moom dafa amoon liste. dafa amoon liste. jaamaarloo ak Mansour Faye mu ngoog kon quelque part am na benn logique bu muy suivre ci sama gis-gis mhm. am na benn logique bu muy suivre bi yoon mu ne man du dem mhm. maa ngi seet li ma doy ma soutenir ko bi ma jàppee loolu gis ne que nit ñi dinañ ma wax ne que man sama post bi ma nekk nii di ci am lii ak lii ak lii. Mhm. fii la nekk xam nga Sénégal ñooy am problème yooyu. parce que yeneen dëkk yi loolu warul nekk problème. waruñu ñëw man ma am projet en tant que femme. Mhm. benn projet di ko liggéey. ah benn kuréel euh, nu mu tudd DER. Mhm. ñëw di financer femmes yi jox ma ñuy ñëw di ma taxaw naan ma ah yow de DER financé nañ la te yow opposant la. xam nga loolu c'est un faux nga ci dëkk bi nga bokk. jeex na tàkk sa droit la. mais toujours ça n'a rien à voir avec sa position politique. foofu lañ toll nag ci Sénégal ci yooyu lañ lay indil ci plateau yi weccit yu sew yu yu ñaaw yooyu yooyu lañ lay indil ci plateau bi yaa ngi nii di wax wante moom pour éviter ça pour couper court mu démissionner c'est cohérent je trouve que c'est alors peut apporter tey ci wàllu maanaam local yi nga xam élection législative autant la personne même am na crédibilité am na nu koy sénégale yi di xoolee bët bu rafet ci taxawaayam ci xam-xamam ak ci melokaanam defe naa ne am ku mel ne moom euh, xaw ma nu électorat am toll xaw ma ko parce que moom Saint-Louis la demoon local mhm. xaw ma ban pois la fa am mais en tout cas euh, man mën naa wax ne que euh, mën naa wax sax ne sama xarit la sama xarit la pas ci politique et depuis cinq ans ah. même bu mu nekkee ministre. mais bu ñu amee yenn sujets yi dañ ci waxtaan par exemple bi OGM yi ñëwee. Mhm. d' accord moom dafa gis-gisu scientifique. ñëw ne que bu ñuy am yenn position yi euh, dafay xaw a freiner suñu recherche. ma ne ko la kooku mooy vision scientifique par contre comme bu produit bi paree am na lu muy indi ci askan wi man côté boobu laay waxee ñu waxtaan ci donc yooyu la ñuy waxtaan mhm. waxtaanuñu waxu politique mhm. donc sur plein de sujets sur l'éducation sur plein de sujets dañuy waxtaan waxtaan yu sore sore sore donc man naw naa ko bu baax a baax a baax de su côté la su ma defee contribution mu wax ma d'accord ma ci lii d'accord naa ci lii mhm. d'ailleurs yokk naa ci lii et vice-versa. donc on a plus ce genre de relation que des relations politiques. donc bu ñëwee bokk fi moi je trouve que c'est c'est une valeur ajoutée une véritable valeur ajoutée. bu bu ñëwee bokk ci ñun. autre point important ci sa njalbeenu euh, kàddu yaa ngi muy wàllu carte yi ndax kenn mënta a tudd élection te waxuñu lu jëm ci wàllu carte yi nu gis Ousmane Sonko am déclaration gim ci def mu yëkkatiwaat euh, coow euh, wax na ndaw ñi na ngeen dem jëli ji seen carte électeurs yi bu ñu leen ko teree sax. foncé leen ngeen dem jëli ko ndax maanaam seen i droit la coow li bëreeti na ci kàddu ndax mel ni dafay incité jeunes yi ci une certaine forme de violence ñuy jàmmal autorité préfectorale bi. noo jàngatee kàddu defe naa ne sénégalais yi bu ñu gisoon jeunes yi dem jëli seen carte même commission yi joxe carte yi. Mm-hmm. bu ñu gisoon jeunes yu jëli seen carte bay xeex pare pour xeex dañuy kontaan ah wala parce que man li ma dégg mooy carte yaa ngi foofu kenn jëliwu ko <laughs> carte foofu kenn jëliwu ko mm-hmm. donc ñu ngi koy wax. Mm-hmm. amul benn étape boo xam ne muy mu benn leader muy usmaan muy Déthié wala keneen ak keneen ak keneen ku jël mm-hmm. parole mm-hmm. waxul ci ne jëli leen carte yi pour man espèce u électrochoc la par rapport ak xale yi tey jii eh, ni ñu concevoir waxtaan quoi ni ñu concevoir eh, ak électrochoc la bés bu ñu gisoon xale yi massivement ñëw taxaw ne dañuy jëli seen carte comme ni ñuy taxaw ba deux heures trois heures du matin mhm. di xaar mais defe naa ne sénégalais yëpp ci kontaan mhm. voilà donc seen façon de leur dire gis ngeen yéen a ngi fii di di topp di wax di kii ñii di kacc-kacc ñii di xawma lan te li gën a am solo eh, àndu leen ci ak boobu xadar pour toppatoo ko li ngeen di def yëpp du mujj fenn bu fekkee ne defu leen lii mhm. léegi nag xale yi ñoom moom waxtaan ak ñoom des fois day metti voilà man man noonu laa ko jëlee daal voilà. Euh, beneen wàll ga commission électorale national autonome muy Sénat ñoom itamit ñu ngi appelé calme ñu ngi appelé li nga xamante ni moom mooy jàmm ci élection yi nga xamante ni moom lañ jëm euh, dimanche alors nu ngeen maanaam gisee message googu nga xamante ni moom la leen Sénat adressé. parce que Sénat mi ngi fi ba léegi de. laaj naa la ko. mu nga ko. parce que ñun namm nañ Sénat ah. te Ousmane Sonko tooñ Sénat bokk wax Sénat pour ñu yeewu tey jii daal bu fekkee de yéen a ngi may dégg yéen waa yéen waa caravane bi duggal ci parce que c'est ça si le problème ah. ok parce que tey jii dañu bëgg. Mhm. yow nga coalition nga ñëw war a am Sénégal yépp ko xam ne dafay contrôler ne vote bi mu ngi jaar ci yoon. ñu naan ñu yéen a fa nekkul moo tax mu am problème fekk senaa mi ngi fi c'est problème tey jii direction générale des élections rekk am mooy def lu ko neex maa ngi liir sax ne que euh, bitim réew à Lyon dañu waa yi dafa ñëw représentant Sénat bi ñëw dax ko au nom de quoi maa ngi koy lire ci tey ci suba rapidement la xaw ma nu mu demee exactement c'est-à-dire que l'administration a pris le complètement le pouvoir sur euh, institution indépendante bu mu war a nekk. ndax dafa am lu ngeen ciy njort yéen ci seen taxawaay. seen faiblesse c'est un problème pour la démocratie faiblesse su Sénat dañ ko suul Sénat dañ ko suul réduire ko à des tâcherons. tâcherons daal. Mm-hmm. tâcherons de temps en temps. Mm-hmm. bon bu Sénat waxee. Mm-hmm. troisième page benn encadré ci suuf dans les journaux quoi. voilà. alors lan nga jàpp ne tey moo war a doon seen taxawaay lan moo war a doon seen taxawaay tey mais dama ne comme dégg comme nee nañ dëkk bi yëpp euh, comme ni koy xale <laughs> yi di waxee Ousmane Sonko bu sell bi. bu waxee nit ñi dégg. média yi reporté et cetera man su ma waxee kenn du dégg yow boo waxee kenn du dégg. kon boog na wax ci Sénat boog comme saa Sénat dégg. xëy na peut-être ñu dégg ko parce que nous on a besoin quand même. Mm -hmm. de que ces institutions là fonctionnent. Mm-hmm. dañ ko soxla. kon bokk euh, lu ñu def rek pour fépp fu ñu war a taxaw euh, càmbar élection yi mais euh, dama koy wax di ko waxaat. Mm-hmm. ñun mbuur fële dañu am un vrai problème ci ñaari ñaari centre de vote. Mm-hmm. fu ñuy wax Guy Mouride ak fu ñuy wax zone Sonatel. lan moo c'est-à-dire dañu leen changer lieu de vote ba pare ñu yore carte yoo xam ne fa ñu daan voté avant moo fa nekk ba léegi ñu dem ci local bi bu ñu ñëwee fii ñu ne leen nekkatu leen ci liste yi suñu demee fee ñu ne leen seen carte lee lañ fi bind ba kenn voté wul ñu nekk fa di xeex pour euh, kii di kii di ñëw bombe lacrymogène yi tàkk jiixi jaaxa ñu mujj ñëpp seddal 2000 électeurs voté wuñu ñu ne fii ak Euh, législative yi nañ ko réglé ñu gis tey ji préfet tontuwuñu tontuwuñu tontuwuñu ñu gis naka réglé wu ko mais ana Sénat ana Sénat pour dëkk bi dox ñoom ñu ngi fa woon jour boobu problème bi est-ce que léegi ñun parti politique yi ñu ñooy dem di xeex di xeex di xeex mais quand que ngay am sax temps wu wax programme ak projet politique tellement le processus électoral tey jii dafa metti Sénégal parrainage dafa metti bokk élection dafa metti lépp dafa metti tâcheron yooyu ñu lay réduire laisse très peu de place à l'intellectuel pour nga nga indi programme pour ñu nit ñi di ci bàyyi xel et les gens te dire ba nga taxawee fii di wax ak lii di lu tax demoo xool lu tax amoon nit bu la taxawal ca bureau de vote ba lu tax lu tax loolu yëpp nga xam ne bu ñu la ko teggi woon nga xam ne c'est du soutien c'est du soutien yow di nga mën a doxal di nga gën a mën a doxal donc euh, c'est c'est ce sont des failles yoo xam ne tout le monde en pâtit ndax mën nañ ci mais tant que ngi fii c'est parce que dafa am ñu ko organiser ñu ko arranger parce que ba problème bi amee wax nañ ko fañ ko war a waxee ñëpp jug nañ ñu recenser def yëpp et ça n'a pas donc c'est fait exprès justement sama question ça dans ce sens ndax mën nañu njort hold-up électoral ci li nga xamante ni moom la ñu jëm ci 31 juillet 2022 en euh, kenn ñaanu ko yàlla ñeneen rumandaat euh, kenn ñaanu ko yàlla ndax koo ci wax rek danaan bu dee jaar na yoon bu dee jaar na yoon mais bien sûr parce que dañ koy wax mën a parce que ay résultat élection à deux heures du matin ay 2000 euh, ASP yu ñëw voté si Dakar lépp gis nañ ko fii mm-hmm. ay 2000 ASP yu ñu defal procuration spéciale pour que benn jour ñoom ñëpp ñu ñëw soxla si Dakar fekk euh, jour boobu yow sax boo bëggee jóge département bi dem département bay mënoo ko mais euh, c'est c'est quoi tout ça war nañ dépasser ay genre problème yu dem yu yu toll noonu quoi donc foofu la foofu la ñu nekk ñi ngi wax tamit ñi jóge Mauritanie di ñëw ah mi ngi mel ne tulleeg mal ci ci réseaux sociaux yi ñiy témoigner ne voilà nit ki ñaari identité la am c'est pas deux nationalités c'est-à-dire man Ndeye Fatou damay tudd Ndeye Fatou Ndiaye nekk sénégalaise mhm. nekk ñu immatriculé la et cetera ñu indil ma di d'identité bind ci Aïssata Ju Aïssata Diop mhm. nekk mauritanienne nii ak nii ak nii dëkk telle localité di vote foofu mhm. ak sama photo mais quest ki organise tout ça qui est-ce qui organise tout ça ñu ne léegi opposition yi dem leen foofu ngeen xeex ak ñooñu pour loolu du am mais attends nañu nañu nañu nañu màgg tuuti quoi nañu màgg pare pour cohabitation pare pour état képp ku fi nekk nga mën a bàyyi xel doo am ay plan naan opposition bi dama ko fiy jëlee dootu fi wax kenn dootu koo gis ah euh, bon dem élection présidentielle ah Karim a ngi yéeg xaaral ma jële ko fi ah demaat kii nii xalifaa euh, ngi yëg xaaral ma jële ko fi ñëw fi ah coalition Yewwi Askan Wi. seen mais est-ce que cette fois facile ak ki nga xamante ni moom mooy en la personne de Ousmane Sonko ndax comme ni nga ko expliqué Karim ñu jéem non déjà législative yi. waaw mais li ñu defoon rek lañ defaat. dañ ne ñii ñu gën a nekk mbër. du ñu bokk ci législative yi. ah bon rentre dans le dans le même cadre que li ñu def Khalifa. li ñu def Karim la mu daan wax la je vais je vais je vais réduire l'opposition à mu xam la mu mën lay def. léegi nag sénégalais yi dañ ci doyle sëkk. ba pare diir bi mët na moo ko waxal boppam ci kanamu ñëpp ñuy xaar ci moom mu nekk gor def yëfu gor. parce que présidence Sénégal du lu tuuti lu rëy rëy rëy la ancien président lu tuuti du lu tuuti lu rëy rëy rëy la. ah dafa am loo ko bëgg a conseil xanaa. ah xanaa dafa am loo ko bëgg a conseil ah non man kañ man du ma conseiller il a il a près de deux cent conseillers <laughs> qui sont payés avec ton avec avec, avec votre argent et <laughs> qui sont payés grassement payés pour le conseiller. mais en tant que citoyenne en tant que citoyenne dama naan li ñuy xaar ci moom en tant que citoyenne li ñuy xaar ci moom ah, ah, nañu yeewi parce que dëkk bi amu fi force occulte amu fi djihadiste amu fi amu loolu yëpp ay kesaw kesaw la lenn moo fi am hmm. moom ndax day def troisième mandat ou di loolu moo fi indi problème loolu moo fi indi jiixi jaaxa moo fi indi lépp looy gis ñuy jël suñu xaalis di ko jëndee ngan hmm. lan moo ci des nous sommes des humains avec des valeurs ñu nekk société léegi bu ñu jëlee loolu yëpp nag ne nañ ko teg fële affaire bi du dem rek xeex non non du dem rek dafa am lu ñuy bëgg dafa am lu ñuy def te ñi taxaw naan sàmm jikko yi pour Sénégal jëm kanam ñooñu lay xaar ñu wax ci waxu jikko bañeen rek nekk topp xale yi ñoo def li réseaux sociaux yi ak yi mag ñi nekk ci dëkk bi di kàcc di wax di teggi seen wax di def leneen loolu tam est-ce que suñu valeur la wala suñu wala du suñu valeur. Ah, war na bokk est-ce que war na fa war a bokk ci sàmm jikko yi. ok nañ ci wax. parce que c'est très facile ngay dal ci opposition c'est très facile ngay dal ci xale yi wante ki yore doole. ki organiser société ki mm-hmm. defar société. Mm-hmm. kooku bu fekkee ne ñeme woo ko wax dëgg yow looy liggéey waxal fee wante waxal fii tuuti takkal sa fit. treizième législature bi génn nañ ko quatorzième législature bi soreetul yéen a ngi sàkku cohabitation pourquoi pas sax ngeen am fa majorité. waaye nguur cohabitation waaw mooy nguur nguur nguur nguur gi fi nekk ñoom tamit ñu ngi bëgg a asseoir maanaam majorité bi nga xamante ni moom leen amee woon noo gisee quatorzième législature gii nu jëm. en tout man li ma xam mooy. Mhm. déjà ñëpp bàyyi xel ne deux ans la yàq. nga baal ma sax am euh, maa ngi gis Mansour Faye wax ni même sax bu fekkee cohabitation bi <laughs> réussir ngeen ko ils vont dissoudre l' assemblée nationale. non deux ans deux ans avant nga koy dissoudre xëy na moom xamul dafa mel ni Covid ba rek bañ ko laajee ne ko da ngay rendre compte mu ne du ko def. xam nga yooyu la quoi moom yooyu la ñu tàmbal quoi man maay beau frère président man maay magu jabaram xaw ma rakku jabaram xaw ma lu ñu bokk <laughs> ah man lu ma neex laay def ci dëkk bi lu ma neex laay wax moom bu baax teg ko foofu bu ñu ñëwee ci liy yoon. Mhm. deux ans avant ngay mën a dissoudre assemblée. Mhm. ah léegi nag ñun dafa am lu ñu bëgg. te xam Sénégal quand nu mu demee. Mhm. maanaam euh, président yu bari ci loxoom la nekk. ba nga xam ne des fois sax day mel ne benn institution rek mooy am mooy président ndax bu ko neexee dàq maire te mode de scrutin bi dafay tax raw gàddu bi ñu bari mi ngi dépendre ci.

bañ lu jóg rek lu to néew gi yëpp Sénégal ñu koy jox entreprise étrangère loolu yëpp am nañ ci mën nañ ci liggéey mais li gën a am solo mooy assemblée nationale tam ci boppam na muy doxee député nan la war a taxawee loolu mu dépendre quand ci député yi parce que yenn mesures yi boo ko jëlee mu am incidence financière maanaam mu am njëkk bu muy war a def munoo ñëw ne da nga koy defe noonu dafay il faut que exécutif bi d'accord ci budget bi am donc mais am na yoo xam ne comme euh, ni assemblée di doxee mu gën a méngoog jamono parce que quand Sénégal du assemblée rek yu bari dafay yàgg te kenn topp kenn changé wu ko yu bari dëkk yañ ko jële woon ñoom ñi gis li ci manqué avancé changé plusieurs fois ñu ñu taxaw fa ñu taxawoon taxaw rek li mu tant que président ceeba ma ngi neex rek li ci des yëpp yoonam nekku ci yoonam nekku ci donc règlement intérieur <laughs> lii cëru député procédure d'urgence nu muy demee projet de loi yi mu indi commission technique yi nu muy doxee finance assemblée nationale nu muy demee nu mu waree transparent ak yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp defe naa ne buñ ci taxawee ci législature bi bàyyil président moom mu doxal parce que président mooy définir euh, programme bi ah. la preuve c'est que amuñu euh, euh, premier ministre affaire yaa ngi dox mais defe naa ne bu soxla budget dina taxaw ta quand même wax ak wax ak opposition li muy bañ a dégg ah ñi mu bëgg dëggaate ba dootuñu amati dina obligé taxaw wax ak ñoom donc y aura des moments yoo xam ne forcément ne serait-ce que man contrairement à que kooku challenge la état bi ci boppam dina ko dimbale parce que yii muy voté en catimini muy dem muy indi jafe-jafe dina obligé taxaw xoolaat ko parce que dina gis gis nga kilo contre moo lay indil xalaat parce que di nga taxawaat ne ah lii kon xaaral ma changé ko amendement bi xaaral ma dugal lii ah lii finalement kat ma ko defee def yow député bi dina tax nga comprendre ne lii de ba ma ko voté ba ma dellu see ca dëkk ba ndekete yoo lii ak lii lay indil baykat yi lii ak lii lay indi ci sànn ci sa càmm gi et cetera dina tax ñoom ci seen bopp ñuy bañ comme niñ koy média yi di bindee i Macky dérul Macky dérul mais mag Macky s'arrête pour étudier ce qu'il demande au peuple comme effort pour utiliser notre argent te tamit yow bu ñu la joxee 750 milliards xaw ma 700 et quelques milliards. plan décennal justement yow ñu laajaat la nga taxaw. moo nekkoon sama dernier point bi c'est l'occasion xam naa ma bàyyi la nga durale sa gis-gis ci. plan décennal boobu nga xamante ne moo nekkoon solution ci mbënd bi nga xamante ne jamono ji lenn ci askan wi ñu ngi koy dund ak ay jafe-jafe yu doy waar. xam nga dafa laaj càmbar. parce que gis nañ ay ouvrage parce que wan nañu ay ouvrage yu ñu defar. ay jéego am na de. waaw am na ay jéego. Ah. wan nañu ko. Ah. wante. Mhm. ba léegi am na lu des mooy dañuy defar ay jéego mu indi beneen problème man man dama ne. Mhm. waa ñun. Mhm. lan moo ñu dal. ay problème yoo xam ne yaa a deux siècles trois siècles yeneen dëkk yi rek la nañ ko lu tax ñun ñu am ko lu tax bu ñu defee pont Kër Massar ba waa Kër Massar kontaan bay dem foofu di fa foto ba naan lii rek la na problème quinze jours après ñu ne lii problème la ñun ñëpp suñu kër yi ndox la léegi dañuy tox ah. mais ba léegi problème la daal ci man techniquement mënuma ko comprendre mbënd bi quoi waaw bu techniquement mënuma comprendre bu ñu tegee jéego mu mm-hmm. indi tolof tolof kooku war nañu dépasser loolu loolu côté technique bi la. leneen li ci am tamit mooy côté xaalis bi ñu ci dugal. parce que mënuñu la wax ne dugal nañu xaalis bu toll noonu. ci benn ëtt benn biir benn bërëb. ba pare ñooñu di am problème. continuer di am problème après nga ñëw wax leen lan man def naa lii man def naa lii mais yow ma koy méngale rek comme ñun ci télécom yi. xam nga tant yaa ngi jël sa téléphone. di woote amoo benn problème mais bés bu taxawee rek nga ñëw xool si ma. donc ñooñu dëkk foofu. mën nga leen wax ne 750 milliards la fi def ba pare këram di taa nga naan ko nga naan ko teg naa ay jéego. chaque année même problème bi di ñëw chaque problème bi di ñëw. donc loolu tam député yi dañ ci war a taxaw sérieusement parce que bu ñu votee budget. ne chaque année 150 milliards la xaw ma chaque année ñaata la. mais année bu nekk lan lañ def. ñëw woote. te bu of nag taxawee ne dañoo ñii dañoo luwal xaalis. ñu exiger ne que ñi ñi luwal xaalis. nañ leen sanctionné. boo ko defoon ñaari yoon ñett gis nga ñetti yoon dëkk bi day taxaw dootoo joxati xaalis kenn mu di ko luubal technique bi di nga liggéey parce que tu rendras compte parce que wax dëgg yàlla mbënn mi mm-hmm. bañ koy wax ba léegi quand même war nañu commencer di anticiper. chantier yu bees yi sax gis nañ ne mbënn bi sax mu ngi leen di commencer. mais mais mais kenn ndax ñi saytu wàllu chantier bi dañoo sóoraalewul ni zone maanaam inondé lañ nekk wala taw dina am. mais taw dina euh, mais vraiment parce que askan wi tam bëgg na comprendre. ba pare leneen tam am mënuñu tee taw yàlla waaye tamit ay nit. nañ ñuy dox ci ko waaw mën waaw nit ñi di la wax ne tegal ñu ay jéego nga ne mënu ma tee taw est-ce que finalement voilà léegi et puis et puis il y a le Sénégal du futur lu tax ñëpp di ñëw dakaar ba lii yëpp di fi am. parce que quand même euh, pression démographique bi la ok voilà yow te fu ne nga koy gisee. Euh, yow nga amoon fi benn kër benn benn kiiwu 400 mètres carrés. Mhm. nga def ko immeuble. Mhm. def ko huit étages. Mhm. trois appartements par étage. ñu am problème mu ndox buy alimenter loolu yëpp. ñu am problème mu assainissement buy génne loolu yëpp. ñu am euh, problème mu yoon yi. canalisation buy yóbbu loolu yëpp. mais loolu yëpp dafay dem te li ma lay wax nii am ah, mhm. mais y a des yeneen dëkk rek la nañ ko. y a des donc ñun de. copier coller la wala. copier copier copier bu baax dal copier yu baax yi. Mhm. copier yu baax yi Sénégal mi ngi dem tey jii ñi ngi nii y a l'urgence mhm. mooy li taxaw mais fi ñu jëm mais que que sera Dakar dans dix ans dans vingt ans Diamniadio ak Dakar benn la voilà. Diamniadio mooy Dakar rek donc dans dix ans dans vingt ans lan lay indi foofu yëpp xam nga xam nga bii lay Wade waxee ne na capital bi dem Kébémer ñëpp ne Kébémer la dëkk moo tax mu mu mu bëgg dem Kébémer nit ñi di ree mm. évidemment euh, y avait un peu de ça mm. mais c'était suffisamment loin pour que mu nekk centre attractif pour wàññi pression démographique fii ci ci ci Dakar donc il faut que ñu taxaw mm-hmm. ñuy xalaat ëllëgu Sénégal ëllëgu. mais euh, askan wi tam amu ci part de responsabilité. waaw mais askan bi. Mhm. da ngay teg ay jéego pour ñu évoluer gis nga yeneen dëkk yi ñun ñoog ñëpp a yem. Mhm. ñun amuñu benn. sikk parce dëkk boo xam ne ndox a ko war ta mën am jafe ndox. di des ci moom laa lay wax anticipation anticipation. Mhm. déjà bu ñu waxee ne waaw canalisation yi nit ñi dañ ciy sànni xar lool mënut ñi di sànni xar ci canalisation. ay. am na ñu mais ñun du ñu ay mala. ay nit lañ dëkk gis nga yooyu. Mhm. dëkk yeneen yi xanaa dañuy tabaski nu ñu def. moom ma jaaxal mu ngoog jeex na kon nañu seeti foofu. Mhm. foofu tam ñu jë ñu jëlee ko fa. donc ce qui fait loolu dafay indi question d'éducation éducation jàng. Mhm. éducation yow mi ñëw ville dëkk si ci ta ci taax yi. naka lañ fay dundee ah? lii boo ko defee dañ lay teg daan. fii kenn du ko fi nangu. wante dem nañ ba nga xam ne euh, lu lu neex waaye nga def parce que am amul amul sens interdit wala boog boo bokkee xam nit commissaire bi sama nijaay la wala xaw ma lan. boo yegg see mu bàyyi la asama la ak leneen. donc ce qui fait que cette éducation à la citoyenneté. ci naka la ñuy war a dëkkee ci ci ville yi nga xam ne dafa waroon ñëw naturellement ak école yi. ak yooyu du sax kii na. ak tamit ay sanction yu leer ku fi def li sañoo ko sa voisin mooy jug bëgguma di ko citer parce que euh, toujours dañ koy citer mais Rwanda mhm. ba ma fa demee mhm. mais boo defee dara ci sa buntu kër mm. sa voisin yi ñooy jug parce que quartier bi yëpp la ñuy sanctionné sa voisin yi ñoo naan la déedéet defaral sa buntu kër mais fii dañ naan mbedd buur la mu Sénégal ba pare toujours nit ki dafay am parce que tu lui rends service parce que xam nga état bi. Mhm. su lay indil yenn service yi ba nga ba nga ba nga gis ci sa bopp. Mhm. di nga nangu fay lempo parce que xam nga ni fii lay jaar mais tamit bés boo ko soxlaa ci lay jaar ne la eh, yow. du ma def comme chinois yi nga xam ne certificat de bonne conduite moo lay jox yenn accès yi. mais mm-hmm. lu lu xaw a demee noonu daal. Mm-hmm. parce que yow maa ngi lay indi lii. mu baax ñëpp bokk ko ñu jéem foog ñu jéem tamit. voilà métti na mais tamit il faut que mu. exactement maa ngi indi li lu baax ñëpp bokk ko. yow ngay def lu la neex di ko yàq yow kese. Mm. yow affaire bi dootoo ci am droit. waaw jeex na tàkk. dañu war a booloo koy xeex la. voilà teg la ci yoon. donc c'est un peu dur. mais esprit bu mel noonu quoi. mais bu fekkee ne euh, amul sanction wala ku am mbokk wala ku am sëriñ wala ku am xarit euh, wala ku bokk ci parti politique yow bokkoo ci sanction yi mhm. ah ñëw làqu ci sëriñ dàqu ci parti làqu ci kii làqu ci ke donc euh, c'est un peu ça quoi éducation à la citoyenneté mhm. avec ay mesures yu leer naan ñu nekk mhm. nii la ñu bëgg Sénégal doxe te loolu foofu la politique ñëwee nan la ñu bëgg Sénégal doxee pour ñu préparer nit ñi pour ñu doxee noonu kooku daal vraiment defe naa ne buñ ci amee jéego euh, dina jël temps te dafa war a commencer ci ñi ci kaw par l'exemple ñi ci kaw buñ ko defee après ñu koy mën a laaj ci suuf parce que mënuñu di laaj nag kii ku sàcce ganaar ñu tëj la boo sàccee milliard joxe joxe caution nii bi sa kër voilà fekk milliards yooyu moo war a faj nit ñi nit ñaa ngi dee voilà donc euh, loolu yëpp c'est des façon de penser la société. boo xam ne defe naa ne buñ ko defee. au bout de quelques années nit ñi dinañ changer comportement ak tam jàng bi daal éducation. am na solo am na am na am na solo mbokk yi yéen ñu ñuy teewlu ak madame Diop Ndeye Fatou Ndiaye Blondin bokk Sénégal avenir bi ñu bëgg ak it nekk membre coalition Yewwi Askan Wi nekkoon sunu ganu tolluwaay bu dee. am na lu ma la fàttee laaj te mu soxal la ci tolluwaay réew mi rek. <laughs> defe naa ne def nañu sujet yi gën a am solo. Mhm. Euh, di la remercier bu baax. Euh, di wax rek ne que euh, ñi ngi ci à deux jours. Mhm. des élections ñu delluwaat tamit di wax nit ñi vraiment. Mhm. sàggante weesuwul. nga bëgg la dara te ci jug def ci li ci war. wax dëgg yàlla bala ngay dem di xeex ak di sànni xeer ak ñu lay jàpp ak la tëj. Mm. demal jël sa carte nga voté moo ëpp jàmm moo gën a yomb donc xale yi daal vraiment jublu leen ci loolu jublu leen ci loolu ah leneen tamit di ñaax bu baax tamit euh, waa mbuur rawatina jigéen ñi rawatina jigéen ñi fu nekk ak jeunes yi. Mm. ku nekk ngi wër ñu génnewaat xëyu ndaw yi. yokkaat retraite yi lu ne ñu ngi koy seen fan yi ci façon wu boo xam ne donte soxla nañ xaalis boobu wante espèce wu influence la bu ñuy def ci ñoom pour kii di leen wax ne xaalis boobu ñu leen di jox yépp si yéen a ko moom seen xaalis la doon na gën a neex ñu leen koy jox tout le temps di bañ a xaar élection pour ñu jox leen ko hmm. dangeen koy yelloo yéen moom ay citoyen lañ <laughs> voilà yëgguma wax ma sax ci côté boobu man nit ñi sax surtout laay gën a wax. waaw ñu jël conscience ne que li ñuy li ñuy jug tey jii. Mhm. mooy liñ fi waxtaanee ban assemblée lañu ñu bëgg. Mhm. ban Sénégal lañu bëgg. Mhm. ak naka lañu bëgg jóge dëkk bi doxe loolu moo ñu war a tax ñu jug dimanche. ñun ñëpp dem voté ci jàmm ak salaam ñibbiwaat suñu kër jàmm ak salaam ki war a gañe gañe fekk triché woo fekk sonnoo fekk dara fekku la ci. ñu ñaan yàlla boobu tam bés boobu tamit euh, soxla nañu ndox torop amiin ndox xéewal la amiin <laughs> wante bés boobu na ko ak tuuti rek mhm. ba yombal ñu vote bi après nag mu dellu si waat ndax soxla nañu ndox di jaajëfal bu baax a baax a baax ci invitation jërëjëf di jaajëfal Seneweb nga xam ne dama koy suivre tous tous les jours tabarakallah <laughs> ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal euh, soxna si di jaajëfal coordination bi nga xam ne Mohamed Diallo ci ne woon rawatina régie bi sunu mbokk moo du Diop di jaajëfal ñi ñu doon teewlu Senweb TV Senweb point com di leen jox dig daje ëllëg ci beneen gan ci tolluwaay mais le programme continue ci boolem plateforme yi leen Senweb indil jaa ngeen jëf wasalaam